c'est la référence. mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm ci ànd bi ngeen wéy di ànd ak rajo Alfayda FM xibaaru wolof yi bu ngeen taaxeerloo ñu jukkil leen li ci gën a fés. benn fan ci weeru ko décembre dara mënta tee gàllankoor dem beeg dikk bi di kàddu chauffeur yi nga xamante ne nee nañu jafe-jafe yu metti la ñuy jànkuwanteel jamono ji te nguurub Sénégal na ci pàtt Alassane Ndoye di ngeen ko teewlu ci biir xibaar yi. njàndu ba dëkk bi ci diwaan bu Ziguinchor askan wi nag ne bu ñu leen yéexee wallu dinañu daal di génn ci seen i néeg ëmb seen i bagage daal yeneen diwaan ndax jafe-jafe yi jànq jànkuwanteel te état bu Sénégal yeeyu ci yàbb yu ci ñoom i tamit génn na ci pataaral ga mu nekkoon moom Abdoulaye Xuma ne nag fi mu ne dina jàppale coalition Benno Bokk Yaakaar gannaaw waxtaan wu mu seex ak njiitu réew mi di président Macky Sall di ko teewlu nu mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi ñaareelu pàcc xibaar yi dina ci bokk xibaaru bitim réew yeeg Cheikh Tidiane Sarr xibaaru tàggat yaram Serigne Moussa Kane li ci yéene kaay moo koy buur ak El Omar Cissé yemook nas bi ñu namoon ci ci kàttanu borom bi Le Cheikh Tidiane Diagne. soxna Koddu Seck madame Keneme moo fare ci wàllug xarale gi mbokk yi dal leen jàmm ci xibaar yi na mu leen ko junjee woon ci bopp bi. door ko ak jafe-jafe yi nga xamante ne ñi yëngatu ci wàll ka dem beek dikk bi ñu ngi koy wanteel tax na nag ñu ne benn fan ci weeru ko décembre ñu tàbbi ci gerew gannaaw fukki poñ yoo xamante ne wax nañu ko nguur gi waaye booba léegi daal gisuñu mu jéem ci dara Alassane Ndoye mu ngi woon ci diwaan bu Ziguinchor dajee na fa ak suñu ndaw Mohamed Sagna mu taataan ay kàddoom ñu teewlu ko dañuy waajal benn gerew le la ñu mën doon waxoon ak le mais du le premier ak le deux le ba kara suñu soxla di faj mooy jafe-jafe transport boo xamante ni bi yàlla dafa logal dafa yàgg te itam syndicaliste boo fi gis rek xeex nga si jafe-jafe transport mais mënul sensé loolu moo tax ñu créé benn cadre boo xamante ni bi fukki syndicat ak ñeent yi yëngatu si transport si Sénégal ñoo mujj wax ni daal kenn ku si nekk def nga syndicat vingt ans dix-neuf ans mais ñu ngi bëreeg mbër moo xamante ni bi mbër mu si bëreeg moom rek mu daan la muy état kon liñ si mën a dimbali mooy ñu def benn cadre jàkkaarloo ak état loolu nag moo tax ñu def cadre bi jàppadetu gerew di wër Sénégal di leen informer réforme bi muy fukki point ak ñeent benn point bu su nekk jar na dem grève loolu moo tax du ñu mën a di cité naan bii point la wala du bële point te mënuñu nekk fi di lim di point yi te boo si bàyyi ñu ni man bokkuma si boobu loolu moo tax ñu tënk plateforme bi jox ko état bi ñun nag ñu jàkkaarloo koo xam ni wax na ni moom xamul brassard rouge kon kooku xamul grève ñu jàpp ni nit la koo xamante ni kii transport ñoru ko wala ñi mu ko dénk transport ñoru leen loolu nag bu fekkee nun mooy suñu métier te ñu jàpp ni métier mi nasax na te day gën a nasax ndax état bi fulaalul transport ñun dund nag war nañoo jóg taxaw sauver transport loolu moo tax tey ji ñu jóg wër Sénégal gépp pour xamal leen ni le premier ba keraa suñu mbir di saafarawu bëgg nañu benn oto bu gaaree doo départ. ñu desandi ca diwaan boobee ba dëkk bi juróom-ñaari kilomètre ak Kanjaay ab dëkk la moom itamit ñoom nag yoon yu bon la ñuy jooy foofee ba tax na mu jural leen ay gàllankoor yoo xamante ne boobaak léegi daal nemmeeku nañu ne nguurub Sénégal yeewu ci yàbbi ci tax nañu amaloon janoo ak taskatu xibaar yi Sidi Balde moo wax ci seen tur ñu teewlu ko moom itamit ci micro Mohamed Sagna. suñu nakaar nag fii nii si ñandu ba lenn rek mooy suñu tëjuwaay maanaam fii ñu ne dañoo tëju ndax fu ñu nekk nii mënuñoo dem mënuñoo dikk ndax tali bu yàqu ak pax yoo xamante ni oto bu fa jaaree bakkan sax mën na fay xaj ndax yàquwaay tali ñu ngi sàkk ñu ngi sàkk si président Macky Sall mu jàppale ñu dimbale ñu ndax ñu mën a defar tali bii nii fii ñuy génn nga xamante ni suñuy rakk suñuy yaay yëpp bu amee fii la ñuy jaar fi dem hôpital te fii nii boo fi jëlee ko om balaa nga yegg fi nga jëm mu am problème si tali kon nag ginnaaw loolu nag ñoo ngi ñaan président moom mun jàppale ndax moom mi ñuy waxal ni xam na si dëkk bi ndax ñëw na fi Abdou Diouf ñëw na fi Abdoulaye Wade ñëw na fi ñëpp ñëw nañ fi gis nañ fii mooy ñanduba mooy fi barrage bi ne barrage ñanduba nag ñun tur lañ si am amuñ si lenn lu dul tur tur boobu nag la ñu war a mu dañ suuru ñanduba boobu lañu bëgg mu daj ñun tam ñu am si si barrage ndax lan nu mun ñu dimbale nan lañ mën a béy si barrage bi ndax ñu mun si njariñoo ñun tam a liggéey si loolu bi ñuy ñu mën a béy ñu dunde comme ni gars di dunde suñu xale yi bokk si ñu gën a a ràññee si jàng mi ndax boo gisee fi école bi soox xamal ni taxawaay la ñàkk taxawaay boobu nag bokk na si ñu war a am CM boo ñetti téeméeri élèves mais boo demee ba si ñëppay dolli ginnaaw seen ndax la du question dañoo daw jàng mais fi leen di yóbbu ñoom ay gune lañ miinuñ fa kenn xamuñ fa kenn ci seen parentam bari doolu noonu comme taxawee fa naan da ngay sa doom am foofu lu muy dundee looloy waral ba xale bi day mujj bàyyi école te loolu doonul lu ñu bi fii nii ñandu ba moo moo bokk na si dëkk yoo xamante ni moo gën a rëy si dëkk bi mun naa yor sem mun naa yor ba liise sax mbaadu ay jàngalekat dafa raaf ca département bu Bignona tax na ñi bokk ci kuréel gi di CELS di artu nguurub Sénégal ñu saafara jafe-jafe yi nga xamante ni jàngalekat yi ñu ngi koy jànkuwanteel ca boobile diwaan waaye tamit ci réew réewum Sénégal yëpp ab ndaje leen ci amaloon amee du Diédhiou mooy secrétaire général bu CELS ñu teewlu ko ci micro Mouhamed Sagna bañ yooyu mooy lii lenteur administrative rappel validation rappel intégration waaye ñu ngi jooy lu ñu tuddee imposition ñu jox jàngalekat payoram waaye weer bu ci tegu ak yeneen i weer yu ci tegu ñu lay tekk loo xam ne kenn mënul xam lu mu tudd beneen bi mooy it jot nañu wax waxu ñun lu ñu tuddee question décisionnaire yi dañu jàpp ne ci jàngalekat yi am na ñaari pàcc ñii ñu tuddee leen fonctionnaire ñeneen ñi ñu tuddee leen décisionnaire pour ñun yenul maanaa pour ñun sels jot na ñu am toogaay ñu waxtaanee ko xool yan mooy dëkk décret yu tëral corps fonctionnaire de manière générale lan mooy problème bi ci décret yu tëral corps décisionnaire yi lan lañ ci war a mën a càmbar lan lañ ci war a mën a changer lan lañ ci mën a war a mën xoolaat jàngalekat bu liggéey ba toll ay moment bay jege retraite xelam du taxaw xelam du dal parce que li koy xaar ci retraite moo métti li koy xaar en tant que décisionnaire moo jéggi dayoo jéggi dayoo joo xam ne pour ñun jot na tey ñu andi ci saafara ñu xoolaat question décisionnaire yi uniformiser système de jëlee njëriñ mais pour que également mu ci jëlee njëriñ mais beneen bi également mooy ñun lu ñu tuddee la question des enseignants yu bokk ci case des tout petits jàpp nañ ni am na liggéey ñuy def yoo xam ne war na leen mën a may ñun lu ñu tuddee ay indemnité mais nu ñu tëggee seeni i arrêté ni ñu tëggee seen i corps mënu leen ko permettre moo tax pour ñun arrêté bi créé corps moniteur yi jot nañu xoolaat ko jot na it département Bignona mais j'allais dire région Ziguinchor nguur gi xoolaat ko li syndicat yi yàgg a wax ni jàngalekat manqué na ci système bi ko su dee dëggal na ko nag war naa mën a góorlu recruter jàngalekat waaye it war naa mën a góorgóorlu recruter jàngalekat bu ko yellool sooy recruter doo ci boole par parloo doo ci boole clientélisme doo ci boole yaa ma neex. ñu bàyyeekoo bët Saalum réew mi ñëwaat ci capitalu Saalum wàllug sécurité alimentaire maanaam dundu gu ñoŋ waxtaanee nañu ko ci diwaanu Kaolack ab ONG daal. moom bëgg-bëggam mooy fexe ba jafe-jafe yi nga xamante ne askan wen ko ci wanteel ak baykat yi ñu saafara ko tax na ñu amal ci ab ndaje fii ci diwaanu Kaolack ni ki démb Mame Ba di kenn ci ñi nga xamante ne ñoo élif ONG bi nu mel ñu teewlu ko ci micro Cheikh Tidiane Sarr. tey ñu ngi fii Kaolack ci atelier bu Tart Network organisé fii pour ñaari fan ñu waxtaan ak euh, ñi nga xam mooy les acteurs au niveau locale donc euh, début processus rek maanaam commencement la waxtaan ak ñoom présenté leen objectif mission bi lan mooy Start Network ci lan la yëngu Start Network euh, benn kuréelu ONG la boo xamante ni mu ngi nekk fii au Sénégal di appuyer état du Sénégal si xeex wàllum insécurité alimentaire si wàllum aussi inondation ak yeneen chock yu nga xamante ni mun na faagaagal dundu askan bi donc loolu lañ fi ñëw tey di def am nañu benn plan bu leen présenté bu nga xamante ni dañ koy càmbar fii nii ak acteurs yi donc ñu wax ñu fii nii ci Kaolack yan catastrophe maanaam yan jéya yu nga xamante ni ñoo fii gën a nekk di sonal askan bi mu di baykat yi mu di nit ñi ci seen bopp mu nekk wàllu wàllum euh, ñàkk ndox comme niñ ko nemmeekoo ci at yi ak variation climatique yi donc ñu ñëw waxtaan ak ñoom ak tamit euh, ndax am na yeneen choc donc lépp lu ci am ñu càmbax ko ci benn euh, document bu nga xamante ni après dañ koy partager ak ñëpp waaw maanaam loo xamante ne dañuy ñëw ndax ñoom lu ci ëpp dañu doon def euh, bu jëyee amee rek ñu ñëw wallu mais léegi ñoom dañu gën a dem ci lu nga xamante ne mooy dañuy boole doole yi balaa jëyee di am ñoom ñu mën a am yu ñu def am nañu ay partenaires ñoo xam ne ñoo leen di jàppale pour ñu am ay fonds de contingence yu nga xam ne bu yooyu amee rek ñoom dinañu mën a ñëw dimbali askan bi. Vélingara la ñu jëm délégué général bu DER moom nag mu nga fa woon ngir ubbi barab bi nga xamante ne moom la ñu samp foofee ngir yombalal jigéen ñi li nga xamante ne moom moo di seen koom-koom. ci ndege moome sax la leen ñaaxee ngir ñu gën a xoolaat nan la ñuy def ba daal di suqali li nga xamante ne moom moo di koom gi ca diwaan boobee Amadou Sarr lay wuyoo ay kàddoom Babacar Diouf suñu ndaw ca barab ba moo ko taataan. dañ fi ñëwoon ak préfet Ngom pour inaugurer suñu point nano crédit bu nekk fii si maison développement communautaire di leen di ñaan yéen jigéen ñi ngeen def ko seen kër heure boo leen bëgg ngeen ñëw boo leen soxlaa financement boo leen soxlaa formation boo leen soxlaa rapacité boo leen soxlaa def ay atelier ngeen wax ko responsable fii DER dina ñëw jàppale leen financement bi am nañu tuutiwul ndax cinquante mille francs boo ko jëlee nga remboursé ko di nga mille francs avant trois te boo leen booloo liggéey déposé ku nekk en dix wala vingt di ngeen am seen cinq cent wala un million ngeen remboursé ñeneen jël comme ni ñu ko waxee fu ñu jaar yëpp ngeen dimbal taux de bi kawe ndax muy tourné am programme bi gën a jëm kanam te bu soobee yàlla fii ak janvier dinañ indi produit bu bees benn carte bi nga xamante ne dina tax femmes yi lañ mën identifier ci carte bi di ngeen si mën a am CMU di ngeen si mën a am assurance wala sa armoire wala si suuf lal bi da ngay jël indi ko ñu épargner ko ñu doubler ko ku teg un million di mën a retirer deux millions ndax di am cinquante pour cent dépôt bi nga xamante ne tax ngeen liggéey AS bi yokku si carte kenn dootu leen agressé kenn dootu leen attaqué dootoo leen takk nafa de carte ngeen di yore ku leen neex leen koy génnee fayee ko def transféré def ko seen poche bu soobee yàlla. doon jëmal euh, ndaje mi moom adjoint préfet boobee di Mamadou Lamine Ngom moom nag ñaax na bu baax soxna yi ñu daal di xoolaat li nga xamante ne moom moo di seen i nekkin waaye fexe ba bor yi nga xamante ne tamit dañu leen koy lebal ñu koy fay nu mu gën a gaawee ñu teewlu ay kàddoom Mamadou Lamine Ngom ci micro Babacar Diouf. ak bor fay te fay bi aussi jafewut yéen ko wax cinquante mille nga teg ci deux mille cinq cent loolu yomb na yàlla te kenn du la teg pression kay la sant te xam naa ne di ngeen fay ci seen fay la aaju yeneen produit yu gën a neex daal génn mais bu fekkee fayuñu rek affaire bi day daal di sooxe. parce que aussi bu ñu fàtte que ne xaalis bi xaalisu Sénégal la suñu xaalis la ñun ñëpp la jox leen ko ndax wóolu leen ci téye yu ngeen kër gi pour que affaire mën a dox donc fay bi bu leen koy fàtte bu te xam naa ni yéen da làmboo ay valeur donte samay jaam ngeen ay pël ngeen mais xam naa ni pël dafa am jom te di ngeen fay bu soobee yàlla donc monsieur le délégué général waaw xam naa ko <laughs> man maa seen buur man kot la maa ngi waaw ak yow aussi Sarr. yéen a yi ci Alfayda FM 90 point ñu woy ci euh, xibaar yi wàll ko politique ci la ñuy àddu junjoon naa leen ko ci bopp bi Abdoulaye Xuma nee na nag fi mu ne dina jàppale coalition Benno Bokk Yaakaar gannaaw diir bu yàgg boo xamante ne askanu Kaolack ñu ngi koy xaar mu yey wala mu yàbbi ci mbir mi gannaaw li yi nga xamante ne président Macky Sall daal na koy fësal mu ne nag li nu mel tax na mu teg candidature am bi mu fi waxoon ci suuf Abdoulaye Xuma ab ndaje la doon amal niki démb ci Kaolack ñu lu ko ci micro Cheikh Babacar Dieng. xam naa li ma bëggoon wax. bu ma leen oowoon téléphone sa wax leen ko da ngeen ko accordé. parce que ñun ci ay principe la ñu ànd. ci dëgg la ñu ànd. te nit boo leen àndee ci dëgg. lu waay waxee dañuy jàpp de dëgg la dañuy ànd ak moom. parce que ñun dañoo am ay projet yu ñu tëral ci kaw Kaolack. te jiite la taxut ci nga mën a defar kaw Kaolack mun ngaa bañ a doon njiit la sa te di defar Kaolack. ci kaw boo leen mun a composé ak ñu yore Kaolack. foo mun a Kaolack di doomi Kaolack war ngaa mën a jàppale Kaolack xëccoo ak intérêt ba tax nga yàq sa dëkk bu la ko dara jaral na la benn intérêt jaral Kaolack jógee koo ci guute yéeg ci jafe-jafe yi mu nekkee suñu discours yi démb ak barke démb ak barke waati démb moo nekk suñu discours yi tey fii laa toogoon nee naa leen buñ ma investir wutoon damay demal sama bopp te décision boobu amoon naa ko ndax amoon na liste bu président Macky Sall validé joxoon nañ ma ko muy Kaolack 2035 nekk na fii si sama permanence ma échéance dara des lu may ay 48 heures 72 heures nga ñàkk benn élément boo xam ne sa genn wàll la bu la ko mairie jaxal jaxal nga bàyyi lépp xaar beneen jongante moo tax ma tegaat lépp ci suuf parce que mu mënoon naa koo teg rombee ko nelee continuer sama combat mais man lu ma mënta am naa ko amee si dignité ak ci ngox ak ci kóllëre mais dafa am loo xam ne du ma ko dara jaral bu ñu ma doon nommé la ma am élément bu mel noonu ma désister sakkantuma maire parce que amoon naa élément yi xam naa fi ma doon def xamoon naa bu ma demee ñu ooma ma ne leen laalatuma dara damay toog déglu di xool di gestu parce que situation yii mënu ma leneen parce que liste defar ko dafa laaj lu bëri te mënoo am élément bu mel noonu jógee koo fii ngay nekk si ay liste ak ay loolu am na loo xam ne gox bu du ko taman doobu gox ñu des ci kàddu Abdoulaye Xuma yooyee wax ne nag am na jokkoo bu yàgg bu mu jokkoo ak njiitu réew mi ba projet bi nga xamante ni amoon na ko fii ci diwaanu Kaolack dëxëñ nañu ko ci bataaxalu coalition Benno Bokk Yaakaar ngir képp ko koo xamante ne mën naa falu mu def ko ngir lu suqali diwaan bi Abdoulaye Xuma ba léegi ci micro Cheikh Babacar Dieng. dégg nañ ma côté bu ne. ndax man candidat yëpp samay xarit lañ parce que gis naa ñëpp seen programme te ñëpp pare nañ pour liggéeyal Kaolack. mais nit koo gis. rawati nga ndaw am na kilifa. boo toogee toog ba sa kilifa yëkkati téléphone dafa am loo xam ne tuuti laa am na loo xam ne ay waxu kilifa la du ma ko wax fii. kilifa woo la téléphone ngeen waxtaan. moo waral lu bëri ma joxe samay papier jox ay papier yoo xam ne ñu disponible toon ñoo xam ne ne taxaw nañ boobu dafa jàmpoon toog nañ ba 23 heures ñi ngi xaar samay liste nangu maa joxe tendance bi métti xëccoo bi métti coow li métti ma xam ne ne bu la dara jaral parce que dama naroon boycotté naka maandu te maandu nag ci combat boo ko seetaanee ku ñu duma yow yaa ko sot ñu duma ko kon na waruma maandu ak fu ma toll ci kaw la du ma maandu damay génnee samay arsenal fexee xeex waxtaan nañ ma ne ko président ma ne ko man benn intérêt moo ma amal dama am benn projet projet bu ma tëraloon ak waa Espagne ay bailleur Espagne pour lu jëmale Kaolack kanam te doñ ko étudier te projet bi mënu ma koo jox benn commune lu mooy commune Kaolack ndax doñ cee fay xaalis di ko étudier mu ne bi dinaa ko intégré ci programme Benno Bokk Yaakaar bi ngir yow ñaareel yoon bi mu ma xuma ma ne ma naam mu ne ma nit du tabax kër def ko ay immeuble ba kër taxaw nga xëy da nga kër gi loolu bu la ko dara jaral ci àddina joxoon naa leen feu vert pour ngeen demal seen bopp ñoo ngeen ngeen ne mënu leen dem ndax am na ñu ma la booleel oo na la recevoir na la jox la papier net bu ñu investir fii nga demee bii ma jël papier yi ko ñu ne Aliou indi na ko yàgg na fi di ma woo foo loolu yëpp amul ma ñëw désister bàyyi kon nag da ngay dellu si sa kër bàyyi kon nag duma def lu may mooy ma dem yoo ma paate yoo ku ñu investir oo kenn ñoruma man li ma ñor mooy président bi nga xam ne dafa ma tegal programme nangu jël sama programme yokk ko ci programme mu Benno Bokk Yaakaar kon nag dinaa défendre liste boobu fas yéene ku ànd man ñu ànd ak Benno Bokk Yaakaar ñu campagne te dinaa jël samay losis mooy li ma leen di woon ne man damaa pare woon dama jëndoon ay sonorisation oto lépp pour lépp laay campagne bi jox ko waa Benno Bokk Yaakaar ñu ànd ak ñoom ñu gàñe ku ci loolu meilleur ñu baraste ko wutali diwaan bu kawoon mouvement dolli la maire ab kuréel la gu juddu ay ndaw ñoom ñoo ko taxawee seen bëgg-bëgg mooy falaat Ousseynou sengoor ab ndaje leen ci amal ni ki démb Cheikh Tidiane Sarr suñu ndaw teewe na ko mouvement bi mu ngi tudd mouvement dolli maire ñu war a dollilaat beneen mandat maire bu commune bu kawoon ñu koy wax Ousseynou Senghor ay ndaw dëkk ca kawoon takkee ci kuréel gu nu jàpp ne ku gën ci kawoon moo di Ousseynou Senghor Abou Sy moo jiite mouvement bu nu mel. bés ni ki tey këwoon nañu jàpp ne am na mouvement bu bees. mouvement des jeunes bu tudd MDM. MDM nag mu ngi signifié mouvement dolli maire maanaam mouvement dolli Ousseynou Senghor ci élection yi ñu jëm. ah këwoon moo ñu ñor nous sommes des jeunes. mouvement bi nag ñu jóg ànd ak le candidat idéal. candidat bi nga xam ne fu xale yi jógee mu jóg fu mag yi jógee mu jóg. candidat bi gën ci dëkk ba tax na bés ni ki tey ñu ngi fédéré suñu kóllëre ak monsieur le maire Ousseynou Senghor. ñuy waajal élection yi bu baax baax ak discours yi wante njiitalu mouvement bi ñuy wax MDM jàpp ne lépp dañ ko war a amal ci yar ak li nga xam ne moo di jàmm. gis nañ li mu def ci wàllu réalisation. gis nañ ni mu jàppalee jeunesse su ko woon objectif bi may lancer jeunesse bi yëpp mooy nañu ànd ak dal nañu ànd ak yar parce que nag élection dafay weesu te woon benn bopp la nañu ànd ci discipline ak euh, le candidat idéal mooy monsieur le maire Ousseynou Senghor. ci lancement jugee ko ci yeneen ci ay parti wala ci yeneen ci ay coalition ñëw rallier ci Ousseynou Senghor bokk na si ñii. kon di wax ne monsieur le maire na xelam dal di ko won ne ko daaru gi benn kàddu rek la xamuñ tey ñu ne waa suba ñu ne déet bis ni ki tey man ci fas laa nekkoon fas seen ñëw seet si ma ma bokk ak moom di liggéey la ma gis moo ma doyut ma génn ca moom ñëw ci monsieur le maire ñun ay ndaw lañ woon ñu nekkoon biir Kanda doon jàppale CESE mais ci jamono ji dañoo fas yéene ñëw ànd ak Ousseynou Senghor taxawaayam ci dëkk bi tax nañu bàyyi yoon bi ñu nekkoon ñëpp ñëw pour ànd ak moom lancement mouvement bi ñu wax mouvement dolli maire bu commune bu Kaoundi Ousseynou Senghor ñu amalee ko ci teewaayu kilifa yu takkoo takku Cheikh Tidiane Sarr ralliement yooyee nag bu Faye kenn demul mu des ci ADK la bokk nee na nag fi mu ne mu ngi ci gannaaw Ousseynou Senghor ngir jàppale koy uh, jàppale ñu teewlu ko mu tekki ko ci micro Cheikh Tidiane Sarr. fi ma far moom mooy Kahone Kahone moo ma ñor le développement de Kahone moo ma ñor moo taxoon ma préféré woon rangé wu ci benn association qui était vraiment apolitique. désormais foo nekk. aujourd'hui d'après bi ma côtoyé leader yi ñii di yóotu di cëpp cëpp yëpp ne dañoo bëgg mairie bi ku ci nekk côtoyé naa la organiser naa fi même benn dialogue social ñoom ñëpp ñu ñëw toog mais ku ci nekk wax ne développement Kahone moom moo la ñor mais par la suite je vois que ku ci nekk intérêt personnel moom moo la ñor c'est la raison pour laquelle ma gis les bonnes qualités du maire actuelle bi nga xam ne moom moo nekk actuellement au pouvoir ma gis ay qualités yoo xam ne dafa différent avec ces leaders là. ñu desandi ca diwaan bu kawoon ki doon jëmmal ndaje mi nag di Arame Ndiaye adjointe au maire ba foofee daal di rafetlu bu baax kàddu ñii di ndaw ñi woowaat ñëpp ci jàmm ne itam kawoon dafa jot ñu daal di koy soppi ci ay xel waaye wax ju bëri mënu fa dara ñu teewlu ko Arame Ndiaye ci micro Cheikh jigéen yi nga xam ne ñu ngi toog fii ci salle bi ñu commencé ko ci suñu jeunesse bi nga xam ne dañoo yàgg ànd ak ñun di ñëfante ba heure bi di gërëm nag mouvement MDM parce que lii ngeen def c'est un boo xam ne xamu leen ko sax le maire idéal Ousseynou Senghor mooy maire bi nga xam ne du tricher mu ngi dëkk ci dëkk bi comme ni ngeen ko waxee du digaate dafa teey dafa am njëriñ dafa am fulla dafa am fayda maire bu mel noonu nag su ngeen sàgganee ba mu rëcc ko woon mooy ah dina ndax ñi nga xam ne ñu ngi tàllal fii seen loxo ci dëkk bi ñu ngi leen def conseillère municipal keroog bi ñu installé nañ leen ko jëgis ba le dernier conseil bi nga ne def nañ ko di élaborer suñ budget bi mu ñëwee xamul nan la budget biy demee kon kooku su toogee fii di tàllal loxo ndokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi jógee daaru abi bi nekkoon ca moom jógee ñëw ci maire yéen ñu leen di gërëm di leen sant di leen wax ni li ngeen def xamu sax ni mu amee impact dëkk bi du xaalis moo ko yore dëkk bi ay technique ak ay defal nit pour seen koñ lamp ndox infrastructure mais yow jox la loo xam ne di mille francs jox groupement cent ñu seddoo ko ku nekk dix mille francs loolu ku ci bugg a tabax commune yaa ngi lëre ni subvention ba maire taxawee tey mu ngi ko fekkoon ci cinq cent mille yóbbu na ko ci deux millions deux xam ne dañ koy ñëw di ko roppat ak yërmande jeunes yi ko doon jël moom liggéeyul pour ku ànd ak moom ak ku àndul ak moom de le bien-être de la commune la fi nekkal dañ ko doon roppat par cinq cent mille par cent mille ba jeex maire de du diggee wax dëgg yàlla de amul benn mitin bu mu dem diggeegul mais lu mu la wax dina ko def ku jéggi dagiloo woon ca commune bu Latmingué yeewu askan bi banqaas gi fare foofe nag tànn nañu Vieux Bandia ya te ko ci seen bopp uh, list bi ngir daal di jël li nga xamante ne moom moo di bokk moomeel ba foofe li ñu bëgg nag mooy jëlee fa Macoumba Diouf mi nga xamante ne du yàpp du jën maanaam defu fa dara ab ndaje lañ ci doon amal ñoom i tamit Daouda Diabo moo yoroon kaddu gi di it de campagne ba foofee ay kaddoom Serigne Gueye moo ko taataan lan mi nga ak commune am maa ngi koy xamal waa Saloum di ko xamal waa Sine Saloum que di ko xamal waa Sénégal que yeewi askan bi bu lat mi ngi commune ndaje woon na tey ndaje bu mag a mag parce que ndaje loolu noonu képp koo xam ne nekk nga militant membre responsable yi nekk ci lat mi nga juróom-ñett fukki dëkk ak ñeenti yëpp ni ci commune bi ñëpp fu nekk am na responsable wala militant yu fa jóge bi muy ndaje bu rëy nag boobu noonu li ko waral mooy suñ candidat Bandia Doumbouya li ci topp mooy nga xam ne fegoog moom mooy directeur de campagne am di Daouda Diabo ak responsable yëpp ñëpp teew nañ ndaje boobu noonu ci waat nañ ci waxtaanal comité électoral comité électoral bu nga xam ne pour ñu waajal élection yi jëm ni campagne bi jëm nii bi nga xam ne liggéey bi dina gën yomb ku ci nekk dañ lay jox sa cër sa poste sa liggéey nga xam ne dinañ mën a xàcceendoo dóorandoo ba ki nga xam ne moom moo fi nekk ñu jële ko fi mooy maire bi fi nekk ni maire Latmingué bii ak équipe am ñun fi xale bu ndaw bu dox ci commune bi boo dajeeg moom sax ne ko commune Latmingué ngi lan ak maire bi ne la de dara waa commune bi yëpp at fi mu at yoo xam ne amuñ mbalka buñ tabax sax bu nuñ ko ko fi def ñoom xam nañ loolu ñoom xam nañ ko léegi nag ñun loolu la ñuy waaj Yewwi Askan Wi moo ci war a loolu lañ comité boobu waaye génne leen jafewal parce que ku amul bilan moom nga jëlee ko foofu noonu lu yomb la te commune bi nangu nañ ne maire bi fi nekk ak équipe am liggéeyuñ dara ci commune bi jabon di ñaax nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo di soxna yi ñu yeewu waaye tamit xool kan la ñuy joxaat seen bokk moomeel ba bala ñoo dundaat juróomi at yoo xamante ne cib naqar rek la ñu koy tekk tax na mu yegee leen kàddu yi le ñu teewlu ko ba léegi ci micro Serigne Gueye ñaare bi li may jàllale mooy di ñaan suñ mbokk soxna yi ay weer a ngi ci gannaaw ay la at léegi tàppale yooyu ñuy def noonu laa bëgg ngeen yeewu xam ku leen jox xaalis ñëw ne projet wala campagne jël leen ngeen lekk seen xaalis la xaalis bi leen war a jox la yoo xam ne dañu dox di naan ñun dañu xaar ba mu ñetti fan commune bi jigéen ñi xaalis lañ bëgg moo ñëwee naxa projet rek ñu woote ñu gàñ a seen yoon ay weer a kenn waxu waxu projet maire bi fi nekk ay équipe ay projet lañ leen ay dikk moo leen ne projet yooyu ay tàppale kese la dañoo soxla seen baat ñu daw ci yéen di leen ay financement ku leen jox financement jël leen yeewu leen seen xaalis lañ leen ay deloo moo muñ ko at def nañ ko fi laa la juróom-ñaar sax tegal na fi amul dara ma ne bilan amuñ zéro zéro boo ko wélee boo dugal ci commune bi nga ne waa commune lan mu def zéro amu fa amul amul luñ fa def stade bi lañ ko bàyyi il fallait que ñu defoon point de presse point de presse ba defoo doon ñu xam nañu daaw la jàppoon lan mu ngi ñu bëri point de presse bi suivre nañ ko il paraît ñu biñ génnee bi yuuxu loolu ci lañ doog a dem na def pose première pierre stade bi xaaj dina na xooy xaalis daan sax ku avancé bu yàggee da arrière commune ñi ñoo ñu ñun de yeewi askan wi ak suñu leader Vieux Bandia Doumbouya bu ñëwee ci maire bi du loolu da ngay créer da ay entreprise yoo xam ne jigéen da jox foo xam ne nit ki leen koy may jën bés bu ne jàngal ko nu muy nappe saa yoon soxlaa jën dem commune bi nag beneen nen la bu ñëpp ko bokk commune bi 84 village ñëpp ko bokk ëppalewu sa morom waaw benn bu ñëpp bokk na kenn du ko baxal kenn du ko omelette dañ koy mayonnaise ku ne soo sa mburu dem yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1 ngeen di ñu teewloo ci Mbellacke Diaw dëkk yee ngi ci biir euh, Sénégal société civile bi taxaw temb ngir daal di jàngat li nga xamante ne moom moo di élection yi waaye tamit ñaax ñi nga xamante ne dañuy bokk ci kuréel yooyu nga xamante ne euh, dañoo war a neutre ci élection ñu daal di dëppoog li nga xamante ne moom moo di seeni chart Cheikh Babacar Dieng dem na seeti ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa RADDHO ñu teewlu reportage bi. élection locale yi dañu ko dëgmal waaye fi mu nekk nag langue politique gi dafa mel ni jax na ñoom farafeñe leen bokkuñu ci fenn ñu ngi koy jàngat xam ma du Mouhamadou du Mbeng moo toogal rajo ci région bu Kaolack li ñuy wax politicien daal moom la nit ñi gën a bëgg a doon léegi ni doon docteur wala doon nangam wala nangam ndax ko ko ci doon dem ñaareel ba beneen gisit ne kenn ku ne man fi ma cosaanoo nekk fa naa fa jéem a taxaw doon fa dara ndig leen nit mën nañ seen peut-être ñoom kontaanuñ waaye gisuñu seen bopp waaye gisuñu sax kon li nga xam ne ñi fi nekkoon ñu ngi koy liggéey loolu mën na ci nekk mais mën na doon aussi une ambition simplement mën na doon ñuy mën a wax ne dégg nga vivre de la politique et non pas vivre pour son pays loolu laa gis seet naa ne ñu bëri ngi ci biir ay novice lañ mais daanaka du woon novice ndax kenn ko ci gis aussi mu ngi yoon ci dara beneen nag seetlu nag wane ne ren jii bu dee ci commune Kaolack ak ci département bi da ngay gis ne tête de liste yëpp ay nit yu bees la ñu nekkuñu ay responsable politique yoo xam ne xàmme nañ leen ci élection yi weesu bii nag ñi gën cee fës moo di ndaw ñi waaye mu am leneen lu bees si ñu ñu te tey jëli yoon wi comme misaal tête de jàmmi gox yi di Fadel Baro Fadel Baro xamaluma ma woon politique sun wàll laa ko doon njëkk a gis mooy société civile man nag société civile bu dugg ci politique man danga may xaw a jaaxal ndax damay wax ne politique quand même jouer un rôle de contre-pouvoir c'est pas être contre le pouvoir c'est un arbitre mooy neutre yoonam nekkul ci yenn yi du ci dugg waaye impartial bu atte jotee mu wax ci lam ci xam waaye su fekkee da bëgg doon juge et parti nag ne ci société civile laa nekk bëgg ne léegi aussi dama bëgg dem ci politique bi munoo nekk juge et parti moom man su ma xalaati société civile man noonu laa ko gisee du nag sax lu ñaaw waaye ci genn côté ñoom ñu des ci société civile ñu ne dañoo jàpp ne lu mel nii moo tax léegoo léeg leaderu politique yi di leen xas na leen yéen ay politiciens ngeen Mouhamadou Mamadou Mbeng bu ne dund na ci lu bari politiciens yi dañuy wax ne ñun politiciens lañ man ça fait plus de trente quelques années je suis à la RADDHO en tant que membre secrétaire administratif coordinateur régional vice-président conseiller d'administration ba léegi je coiffe toute la RADDHO tant au niveau national international je crois que amul benn nit buy toog di ma wax yow mbeng pees nga bokk wala PDS wala AJ wala déet ndaa deen man bi nekkee crédo sax nekk rado fii étant coordonnateur képp ku ma gisoon mu bokk ci su ma ko gisee mu bokk ci benn parti dama ko wax wala ñu feeñal la nga démissionné kon suma vision mooy la société civile doit s'écarter de la politique waaw faire une politique autrement élection locale yi ñu dëgmal nag bu ñu ko tëkka léegi yi fi mujjoon a am ci atum 2014 li mu liste dafa wàññeeku bu baax ci Kaolack commune ndax ren ci juróom-ñaar rekk la toll bu dee ci département bi moom ñett rekk lañu Cheikh Babacar Dieng ci candidature yooyu sax journaliste formateur bi di Aline Badara Diallo moom jàngat na ko ci biir candidat yi laaj dëkk bi ak coalition benn Bokk Yaakaar ak kilifa ya nga xamante ne ñoom ñoo fa nekkee ak tolluwaayu politique bi ñu teewlu ko ci micro Cheikh Babacar Dieng Aline Badara Diallo. Serigne Boum ni ma ko doon waxee sànq naam am na yaakaar turam bu ñu déggee ne mu ngi si lang yi waaye nag mbir mi tamit am na loo xam ne mun nañu ñu si sow bi mooy ndax moom am na expérience politique pour contre ñu nekk si nguur gi mu leen calmer ak itamit li mu jàng arab dong du ko gàllankoor loolu ay la yu taxaw su demee ni ki aussi raxma si beneen langue gi raxma itamit naam am na doole je veux dire si wàllu moyen gi yooyu waaye ndax doole dong dina doy rawatina moo ki mu jël place am muy Mariama Sarr soxnaam la woon loolu itamit mu doon ab gàllankoor maanaam am ko jëlee neneen naan dañ koy jéem a daanal def tout bu mu jàll loolu si handicap pour raxma la waa atom mooy déjà fédéré na yenn ponkal yu fi newoon comme Nafissatou Diop ku demee ki aussi Mimi Touré ancien ministre mu ngi ak moom ak ñoom ñoom seen ak ñoom seen maam ñooñu ay kàngam la ñu nañ ko andil doole mën nañ ko andil mbooloo waaye nag c'est pas évident maam nit ñi ne am na conscience citoyenne fu mu toll foo xam ne nii peut mbiru finance rek mënu tax itam nit ñi woote la sëriñ bu am na avantage la woon moom séntu nañ ko woon waaye ñëwul le fait que Macky ko désigné loolu mën am impact négatif waaw bi ak benn solo mën naa wax ne daal li leen dal daanaka benn la ay gan lañ ni ko yi deuxièmement aussi élargir na nguur gi la àndal loolu atu la Bengello nag xam naa ne moom au niveau communal lañ ko xamoon xam naa daal moom am na sas moom am na sas waxuma na nag du ko béy waaye am na sas bu yaatoo yaat waaw Fadel Barro ñëw doo seetloo waa Kaolack la xam nañ ko au niveau national waaye nag si biir Kaolack moom ñi ko xam yaakaar naa ne bon peut être yi yi la ak ñoom sax mais en tant que citoyen Kaolack waaye il n'est pas si actif bon je crois que est ce que léegi Fadel dina am temps ko yooyu loolu dina daw xelu bàkkam lam bu si buggee gis-gis bi nu mel la ci waa rado am moom Mouhamadou Mamadou Mbeng nag taxaw ci ñaari candidat yi di Serigne Mboup ak Modou Ndiaye Rahma candidature Fadel baro tamit bokk na ci li nga xamante ne jàngat na ko ñu teewlu ci ay kàddoom Cheikh Babacar Dieng moo ko taataan ñëpp xam nañ ne exemple ku mel ni Ndiaye Rahma buñ ne deful politique it dana déedéet ndax mu ngi woon ci social bi bu baax moom dëgg la moom Kaolack ñu ngi koy xam man Kaolack laa dëkk bien que le président de la rado mais man mënuma la wax kii mooy Ndiaye Rahma yàlla même nag il s'investit beaucoup dans le social en toute honnêteté dama xamul nag lan mooy ambition politique am ku ci mel ni Serigne Mbuub it gis naa ne nekkoon na Kaolack ñu waat foon fii ba doon président chambre de commerce nekkaan ci di liggéey xam nga kër de Kaolack moo ci nekk miinu ko bu baax nag waaye xam naa ko gis naa ko sax ci représentation chambre de commerce yi bi ñuy wote fii moom mu ñëwoon fi gis naa ko aussi muy génn bu bëri di dem di dem mais man defuma politique nañu xool ñi nga di jot ñu ne dañuy jël liste ñu taxaw di ko bokk ak ñun concitoyen Kaolack yi di seet lan lañ fi doon def avant lii ñëw parce que je crois dafay préparer boppam am tur rek doyul mais am jëf am na solo am tur am jëf nit ki dañ ko xamee rek parce que am na xaalis nañ ko xamee ndax am na tur nañ ko xamee ndax c'est grand footballeur c'est un international waaw grand commerçant c'est un homme mais nañu xool ba mu ko doonee lan la jëriñ ko doon defal goxam avant lii di ñëw. xabaar yi bitim réew. xibaaru bitim réew yi gannaaw ba ma la nuyoo Cheikh Tidiane Sarr ana fan la ñu koy tàmbalee. dañ koy dooree ca réew mi ñuy wax euh, Gambie wax ci campagne présidentielle yi nga xam ne nag euh, ñu ngi koy waajal bu baax a baax jamono ji lu ñu jàpp ci candidat yi moo di juróom benn samp nañ seen ndënd ñu war a amal élection yi ni ki ñett fan ci weeru décembre bi mu doon élection yi njëkk njëkk gannaaw bi nga xam ne nag Yaya Jammeh ñàkk na nguur ga jamono ji aadama Barrow di ko jiite nag ñu gis ne daal foofu la ca réew mi ñuy wax Gambie daal ñu bëri ca candidat ñu ngi naxaral bu baax a baax doxalinu Adama Barrow bokk ci waa yi ñu doon wax Ousmane Dabo Yaya Jammeh nag bokkul ca élection ya donte sax ñu ngi wax ne mu ngi jàppale candidat bi ñu wax Maman Kandé nag euh, bokk ci beneen euh, kuréel mu doon élection yoo xam ne daal euh, CEDEAO ak yeneen ci ay mbootaayu xeet daal ñu ngi koy saytu bu baax a baax di sàkku nag lépp am ci jàmm ànd ak kaaraange gu mat sëkk. xabaar yi bitim réew. ca RDC li fa am moo di fukki nit ak juróom-ñett ñoo fa ñàkkati seen bakkan ci ab song boo xam ne mu ngi amee ci dëkk bi ñu wax Uturi ñi ko def nee nañ ay euh, groupe euh, rebelle lay bokk ci Codeco ci ay xabaar yi nga xam ne nag fës na fa daal ñu ne li fa jotagum ñàkk seen bakkan ci song yooyu daal mu ngi tollu ci fukk ak euh, juróom-ñett am ñuy wax ne sax toll na ci fanweeri nit ñu bëri ci ñoom doon ay civil nekkoon ci benn barab boo xam ne daal dañ ko déplacé woon wante def katu ñaawteef yi song leen faat fa si ñoom lim bu takkoo takku ca RDC. xabaar yi. bitim réew ca Comore moom lu gouvernement ba def moo di taxaw temm ngir xeex sàngara si nga xam ne nag euh, fës na fa lool ca dëkk ba rawatina nag ñu koy jaay ca mbedd yaak ñu nu mel ak nu ñu koy jëfandikoo ca réew ma gën cee fës xale yi nga xam ne nag euh, saa su nekk dañ koy utiliser nag ba tax daal kilifa yi amaloon benn opération boo xam ne liñ ci jubloon moo di xeex euh, wàllum consommation alcool boobu ci mbedd yi ñu gis ne nag lu nu mel sax day faral di jur ay nit ñu bëree bëri di ci ñàkk seen bakkan ay fitna tamit di ci dox ci diggante yenn ci ay gàngak euh, wala sax ay jeunes tax ba daal kilifa yi lu ñu décidé jamono ji moo di tëj yenn barab yi nga xam ne dañ fay jaayee alcool bi foofule ci réew ma. bitim réew Côte d'Ivoire moom kilifa ya lu ñu bëgg moo di yokkaat seen effectifu militaire yi maanaam armée ba lu nu mel ku ko wax moo di Alassane Dramane Ouattara gannaaw bi mu jógee ko ci ab voyage foofu la ca Paris si la wax ne danañ yokk limu soldat yi foofu la ca réew ma si lu tolloog 3000 ci at mii di ñëw lépp ngir gën a sàmmat kaaraange askan wi waaye tamit jàmmaarloog ak noonu yu mag yooyu ñuy wax terroriste yi. xabaar yi bitim réew. dañ koy jeexale ca Éthiopie boo moytu daal fitna yi dina gën a yokk foofule ndax gis nañ ne daal rebelle yaa ngay gën di jege capital ba bu baax a baax nee nañ sax soreetu ko ci lu tollook deux cent kilomètres tax ba nag euh, ki nga xam ne moo di élimaanu jawrin ba di Abiy Ahmed nee nañ mu ngi changé discours jëm ci wàññi xataram gi nga xam ne amoon na ko daal waa France ñoom dañoo am njàqare gu mat sëkk ba tax daal ñuy sàkku seen euh, doom yi nga xam ne ñoo nekk ca réew mi ñu wax noppi ñu jël seen i bagage fa seen i génn ca réew ma nu mu gën a gaawee. xabaar yi bitim réew. xibaaru tàggat yaram yi Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Cheikh Tidiane Diagne maa ngi lay fay te nuyu mbokku auditeurs yi di la ñaanal di ko sàkku ci ñoom xibaaru tàggat yaram dañu koy doore ak juróomeelu bëccëg Ligue des champions bi dox démb nag Dinamo Kiev nag dafa ñàkk ci kanamu Bayern Munich ñaari bal ci benn FC Barcelone ak Benfica ndam demul ndam dikkul Villarreal ñàkk ci kanamu Manchester United ñaari bal ci dara Young Boys Bern ak Atlanta sa morom Lille daal di daan Strasbourg benn bal ci dara Séville FC daal dara dara Chelsea lapp-lapp yu metti waa Juventus ñeenti bal ci dara Malmo ak Zenit Saint-Pétersbourg ku nekk benn bal nga dugal sa morooma tey bu juróomi waxtu jotee ba ñeent fukki simili ak juróom Besiktas ma laaleek Ajax d'Amsterdam Inter Milan di laaleek Shakhtar Donetsk bu juróom-ñetti waxtu jotee Sheriff Tiraspol di laaleek Real Madrid Sporting Portugal di laaleek Borussia Dortmund Atlético Madrid di laaleek AC Milan Liverpool di laaleek FC tey lay door juróomeelu bëccëg bi bu ñetti waxtu jotee ba teg fanweeri simili Spartak Moscou mooy laale ak Naples Naples googu la ñuy def sax Cheikh ndax ñoom xamal nañu nag kii di Victor Osimhen doomu Nigéria bi du mën a bokk ci Coupe d'Afrique des Nations gi ñu dëgg ma li ko waral nag moom démb la ñu ko opéré nag ci li nga xamante ni moom mooy ci bët bi ak ñetti damm-damm yi mu jëlee ci kanam gi lu mu gàtt-gàtt nag toog juróom-ñeent fukki bés Napoli bi nag de Victor Osimhen li des ci kan bi nag xam ngeen ne bëriwul ba tax na nag waa Naples ne kii di Victor Victor Osimhen du mën a bokk ci Coupe d'Afrique des Nations joriñ wàllum tàggat yaram di Matar Ba moom nag dellusiwaat na ci CAN 2021 gi ñu dëgmal foofu ci Cameroun nag na nag moom bëgg-bëgg Sénégalais yi la àggee li nga xam te moom mooy staff bi dellusiwaat na sax ci li ni mel Matar Ba ci micro rajo Alfayda objectif u Sénégalais yi dama ne objectif u non loolu beneen question la objectif u Coupe d'Afrique ak objectif u entraîneur bi tax ñuy maintenir ko am na tuuti différent man objectif fi may waxe toujours naan notre ambition notre objectif c'est gagner la coupe porte les objectifs des sénégalais sénégalais yi tey li leen tax a jóg li ñu bëgg mooy gagner coupe d'Afrique loolu laay wax ci tubaab tous les jours maintenant pour le contrat de Aliou Cissé je rappelle que Aliou Cissé agent fédération la l'état da koy accompagner pour jël en charge le salaire te li ñu ci def gagner coupe d'Afrique bokk na ci qualifié mondial bokk na ci coupe d'Afrique moo njëkkee yàlla na ko Aliou Cissé gagner parce que xam naa ne bu dee bëgg-bëgg moom moo ñu gën bëgg a gagner coupe dinañu li ñu war def en tant que état booy dajale yi yëpp li nga xam ne moom la soxla tegal ko ko fédération Gaston aussi mu ngi ciy liggéey pour li mu soxla sur le plan administratif mu tegal ko joueurs yi ku dégg seen déclaration dañ la naan bu ñu gàñal coupe d'Afrique bi échec la dégg naa ñaati ñaar wala ñetti joueurs yu wax kon kay ñun ñëpp ñoo ànd pour benn ambition nañ joxante loxo wóoluwante pour dem ci loolu edewante te suñu ko defee je pense que mën nañu ko am c'est ça on reste quand dans le domaine des sports a de montée jëm ci jigéen Flying Star ñoom nag jël seen ticket ngir yéeg ci saison gi ñu dégmal ginnaaw bi ñu éliminé nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa ISEPT ak ñi di waa Pikine Basket Club ma ngoog Cheikh Ahmed Tidiane ginnaaw ba ñu leen ñaanalee kandaa yu jàmm li mu gënoon a fës ci xibaaru tàggat jarami jaa ci yéene kaay yi kaay yi. L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf. li ci yéene yi ñu ànd ceeg El Omar Cissé. Ah. halaan bi ku Macky Sall fa war a wax ne du bokk ci élection présidentielle 2024 ndax loolu rek moo mën a tax jàmm delsi ci réew mi fitna ji ñëpp di ragal bañ a yeewu 24 heures yéen a kaay ñi ko xamal waa ñoo lank yi ñoo ko wax ci 24 heures yéen kaay seen gis-gis mooy fitna ji ñuy ruumandaat mu jóg ci réew mi coow li yëpp lu ji njaaga Macky sàll mooy njaag njiit réew mi fa war a taxaw wax ak sénégalais yëpp lu leer nañ ne 2024 du ma laaj ñetteelu mandat te du ma bokk ci élection yi ndax yoon mayut ma ko su ko deful nag ñii di dox tànki jàmm na leen wóor ne réew mi ci fitna la jëm les échos yéene kaay ne waa ñoo lànk yi kay wax nañ ci charte bi ñu wax ñu xaatim ko woy politique yi ngir jàmm waaye wax nañ yoon wi gën a gaawul te soréewut ak li Ousmane Sonko waxoon mooy kenn ku nekk soo defee la nga war a def kenn bañ a jalgati yoon kenn bañ a noot kenn bañ a tooñ su ko defee jaru ñuy signé ay charte jàmm rek kay am ci réew mi waaye tooñ jaay doole dóor kuñ ko def nga fayu yéene kaay bi na ñetteelu mandat bi fi mu toll ni fa féewale société civile bi Sud Quotidien ne élection locale yi boo mooy tut fitna dina fi def ndànk de baax na ba ci sénat bi nga xam ne hors mandat ci la ne ak ñàkkante bi préfet yi def ak waa cour d'appel yi ci waxut fa mu mujj du baax de wal fajër yéen a kaay dëggal ko na lii xeeñ neexut jàppante ñàkkante moo nar a am ci élection locale yi boo mooy tuut l'observateur ne jëwriñ ji ñu dénk wàlluk biir réew mi moom fa déposé fukki recours ak benn ca cour suprême lépp ngir attekat ba dajji dogal bi nga xam ne yenn cour d'appel yi jël nañ ko ci ay dogal yoo xam ne ku jégi la arrangé mu mel ni la am maatam ak juróomi dossier la yoon atte vox populi ne man daal faa di wax ren élection locale xamee maanaam wot direct raw gàddu ku jiitoo benn xob rek jël nga ndam la gis nga loolu ay risques yu mag la ci askan wi ba ci sax candidat yi nay leer leneen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne waa gëm sa bopp seen recours yu ñu dugaloon kalaame yoon ngir seen liste ya rawatina ca département bu ndar la tax ñu fori néew dëgg-dëgg source a nee na mooy problème mu délai ci nar a am problème dëgg nag ci élection locale yi ndakaaru mooy duudu wàdd mbëru wàllu Sénégal Ablaye Wàdd moo fas yéene ñëw ngir wàllu si duudu wàdd ci élection yi lu ko mooy mu fori néew de enquête yéene kaay ñi ko xamal Kaolack ndàngaam seen njiit la dalal na Serigne Boub ñaanal ko yàlla ca candidature am ba ngir jiite maire bu Kaolack l'évidence yéen a kaay na ko hée na def ndànk de gis nga Kaolack ndàngaan googu Pape Simaxa ma nga joxante loxo ak Rose Wardini seen ànd googu nag nar naa def lu garaaw kawlax maanaam ñoom Pape Simaxa fa ñoo nar a mbuqi gaa yi ku leen xeeb rek yaa ngi ci erreur de erreuru Benno Bokk Yaakaar nag mooy Diouf Sarr ba ñu jël jiital ko ngir maire bu Ndakaaru du samay kàddu ndaw yu bokk ca Benno Bokk Yaakaar ñoo ko wax ci alerte yéen a ne neen Diouf Sarr fay fori new fañ ba mu tëdd Barthélemy Dias male askan wi duñ taxaw moom sax

leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy xam na ay magistrat àttekat yoo xam ne fañ leen a toxal ngir teg leen ay daan le mandat yi ne kaay ne bokk na ca Souleymane Teliko Tamba gañ ko yóbbu fañ ko bëgg a sànk de ndax moom bañ kat la fa bëggoon àttekat yi moom seen bopp tëddee njaaxanaay di àtte yoon waaye gis nga tey lu ko jural tribune yéen a kaay ne àttekat yu bees yooyu ñu fal hé ay dossiers yu tàng jir mi leen di xaar ah, yaaw seetal diggante Ousmane Sonko Adji Sarr mbiru Bougazeli député bañ jàppoon ci oto baak foo biyee yi ñu tudd ci passeport diplomatique miss yi nga xam ne fañ leen a violé lii yëpp nag fañ ko war a lijjanti ñoom attekat yu bees yi lii yéene kaay ne doyen des juges bu bees bi mooy ki war a atte mbiru Ousmane Sonko yi ak Adji Sarr ay xibaar fa génn di xam la ne attekat bu bees boobu ku jege Adji Sarr la maanaam mbokkam la wala yéni mel gaa ñaa ngi koy de te dara xewagul li xew ci biir attekat yi nag muy toxal googu ñu leen toxal laas yéene kaay nee na mbiru Souleymane Teliko a ba ñuy wax Idrissa Ndiaye nekk ca cour d'appel bu diwaanu Kaolack ndangaan kooku kaam moo a quotidien ne Téliko bañkat bi mu doon moo ko lor ci gàttal gis nga Macky Sall mii ak ñim àndal attekat boo xam ne luñ la sant doo ko def doo wëy ci seen waaw duñ ci boole wax fañ lay affecté sanctionné la yóbbu la ca àll bu xonq ba rek su ko defee ñu fàtte la l'observateur ne njiit réew ñaari xar xanam la xam maanaam fay soppeeku de diggante gis-gisam ak tolluwaayam ci réew mi lépp la yéene kaay bi leeral keneen ku leeral ay dëggam jëm ci mi du kenn ku may jëwriñ ko dénk le soleil yéene kaay moo séq ak moom waxtaan wu yaatu ci njëndam njaayam gerte meeg njëgu gerte geeg lépp xamul lu mu bàyyi exclusif yéene kaay ne xeex bu métti moo am diggante ay baykat ak sàmmkat ca dëkk ba ñuy wax kër Maawa Géey ñaari nit ñu gaañ leen fa gaañ-gaañ yu métti xam koo xam na sax fa ñoo dagg loxo ba tapet ba léegi benn loxo la xam laneen lu xam mooy xeex bu métti diggante orange ak wéef ah, yow seetal te mooy yéen a kaay nee na ku bëgg dee wéqu xam nga orange léegi tey wéef rey ko ba mu dee ku yónnee xaalis fi mu toll nii wéef ngay yónnee xaalis ndax orange moo ne fa cher waaye fi toll nii loolu jeex na tàkk waa orange yi ñoo gën a yombale wéef fukki yoon booy jël xaalis doo fay dara soo yónnee sera virgule huit pour cent moom ngay fay kon ñii ñoo gën a yombale wéef loolu baax na ci askan wi leneen lu baaxut ci askan wi wàllu napp gi jafe-jafe yi du xaaj du jeex ba tax nappkat yi ña ngay tëkku ne boo moytul fa ñuy geraw tàggat yaram City Paris jongante bu nar a neex tey Barça nar naa fori new xaye ko nar a xenu ndax démb fa waroon a dóor te dóorut léegi bu demee fekki Bayern na Bayern na ray ko mu fori new stade yéen kaay bu mag a mag bi moom Real qualifié na mook Inter moom di ñu xamal ay ñu doon sàcc oto Dakar yóbbu ko Sindia ci ab oto ba jaay ko par pièce détachée waaye teg nañ leen loxo nga ñu mooy ñi nga xam ne fa ñuy fitnaal soxna yi jigéen ñi le quotidien yéen a kaay ne fukki fan ak juróom benn ngir ñu ànd ci coppite liñ seetlu nag mooy soxna yu bëri ci seen néegu sëy foofu lañ leen di fitnaalee réew mi yéen a kaay moom di ñu xamal benn waay boo xam ne faamoon gel séq ak moom yëfi saay-saay filmer ko gel ba bàyyi ko mu ne ko du yombee noonu saa bu bëggee ànd ak moom rek na ko boo bañee ma wane suñ vidéo bi ndaw sa nangu ba ko yëf ya soofee nag koo yóbbu ca yoon ñu mujj teg loxo waaja mais guddoo xiddoo na ya bunt ba ubbeeku na benn waay daal ay buxaa xërëm kat ñoo ko wax na ko soo bëggee am xalal wala nga bëgg a jot ci ak nguur fa ngay tëddee ànd ak say doomu jigéen waaja tamit dégg ndigal bëgg xalal tax mu jàpp ñaari doomu mu jigéen di leen tëddee allah léegi ko yéene kaay ñu ko xamal waa ma ne xalalu àdduna jarut ko nguur jarut ko ndax ñaar yëpp fay jeex te fa ngay dee bàyyi leen fi teg ngërmaande ñeel na El Hadji Omar Cissé laataa ñu yëkkati jotaay bi ñu amal ak pàttali benn fan ci weeru ko décembre dara mëntatee ba gàllankoor du am ci dembeek dikk bi di ay kàddu euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo di euh, transporteurs yi gannaaw jafe-jafe yu ñu am te nguurub Sénégal yooyu ci yàbbi ci njàndu ba dëkk bee ngi ci diwaan bu Ziguinchor askan wi di sàkku walu ci nguur gi jafe-jafe yoon moom moo leen alawtiko génn na ci pataaral ga mu nekkoon Abdoulaye Xuma ne nag fi mu ne day jàppale coalition Benno Bokk Yaakaar gannaaw ndigalub euh, njiitu réew mi di Macky Sall teewlu ngeen ko ci biir xibaar yi pàcc bi dem nañu bitim réew ak Cheikh Tidiane Sarr tàggat yaram Serigne Moussa Kane li ci yéene kaay moo ko buur ak El Hadji Omar Cissé mbokk yi ci déglu bi ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant des leen di ànd ak rajo Alfayda. Le journal Cheikh Tidiane Diagne.